li président bi wax rek duma ma damay jël ni sénégalais yépp wax président li mu wax la sénégalais yépp moy coupe lañ soxla moy manam ñun liñ dem compétir biñ dem dañoo demuñu fa pour solo ko ko ak wu dañu dem pour xaré pour indi coupe Sénégal dafa soxla coupe coupe la soxla parce que coupe bi coupe d'Afrique bi passé ñoko mom pour ñu perte ko mom sens la dem ba final mom boko ko mom coupe rek mo coupe rek mo coupe mo dess Sénégal coupe rek moko manké coupe la wara jël Il C'est la pire équipe que le Sénégal n'a jamais eue. C'est la pire équipe que le Sénégal n'a jamais eue. Sur 100 Sénégalais, 10 hmm, hein, ne peut pas définir les 11 types de l'équipe. Quand on l'a ce souvent, de tech. Et dans une équipe normale, hein, même le citoyen lambda,

dañuy dem ba quart de finale mënuñu comprendre dañuy ba dem ba demi bi ba dem ba finale mënuñu jël coupe xamuñu lu ne ci biir mais li ñu intéressé moom mooy coupe comme que qualifié nañ yàlla def nañu qualifié encore coupe lañ soxla. Alioune Cissé non Alioune Cissé moom na gën a góorgóor rek gën xam nga nit moom da koy ñaax mu gën a am jom waaw mais soo wàccee garaatam rek garaatam day wàcc waaw nañ ko gën a yokk jom daal gën kaa encouragé mu gën a am jom. ñun lu leen di ñaax rek mooy lan ñun soxlawuñu ay dem final ak quart de finale yëpp soxlawuñu ko mooy coupe lañ soxla quoi ndax bu dee qualité joueur yi ñun am nañ ko tactique bi am na fi mais problème coach lañ am chaque jour ñu koy chaque jour moom la gars yi di wax problème coach am léegi ñaan rek mooy muy déglu xalaatu nit ñi change di def changement tactique quoi ndax équipe boo amee qualité joueur yi nekk si yëpp changement tactique an da si am solo quoi am na match yoo xam ne entraîneur moo koy gagné quoi am na match yoo xam ne jour mais am na match yoo moo koy jour man daal li ma bëgg sëñ bi moom ñu gën a am jom coupe bi ñëw senegal ñu norak leen soxla waaw loolu dong daal lan soxla waaw am naa si yaakaar moom waaw suñu gënee am jom coupe bi na ñëw fii moom li ko sas mooy soxlawuñu leneen soxlawuñu quart de finale soxlawuñu finale soxlawuñu dara coupe bi lañ soxla quoi bantuwul waaw mais mu démissionné rek may ñeneen ñu xool ba xam quoi wax dëgg yàlla loolu lañ soxla bu ah. antuwul moom mu démissionné may ñeneen ñu xool quoi suñu xalaat bu gàtt ñu loolu la daal wax dëgg fa yàlla loolu rek moo nekk suñu mébét quoi mooy coupe daal lañ soxla quoi te moom lañ ko sas tamit moom lañ sas joueur yëpp tamit joueur yi tamit rek la ñu a satisfaire waaw ëllëg lañ si dara mais yóbbu nañ ko nañ ñaan Sénégal yëpp ñaan comme ni ñu waxee dem nañ qualifié nañ kenn duñu koo xañ parce que ak équipe bi yëpp mu jël coupe bi indi ko. Aliou man man daal franchement Aliou moom bëgg na trop am na yéene bëgg na Sénégal bëgg na équipe bi mais xam xam daal doyul sénégalais pour mu mu mu mu mun a indi coupe bu ko indee dinañu bert na bert ñu bari quoi. Ah, ni ñii naan Aliou Cissé mun na fi andi coupe mais boo xoolee ñi ay entraîneurs yi jël coupe kenn génnu ko ci palmarès Aliou Cissé boo xoolee lu mu def équipe nationale Sénégal mosuñu am entraîneur bu def loolu fii Sénégal. kon donc nañ ko ñaanal rek parce que ñun lepp lu ñu ñu sénégalais bëpp sénégalais lu ñu bëgg momi lool la bëgg moy andi coupe bi bu sa yoon bu dé lu ñu dem jël yëkëti andi kon da koy def mais comme mu ngi ci yoon bi daal dañ ko ñaanal rek waaw fi mëna gëna def énergie moy mo am classement bu baax classement bu baax première ba paré xam ay changement parce que un entraînement euh, un, un entraîneur dafa wara xam classement ba paré xam joueur yi mu génné ak joueur yi muy duggal équipe bi wax dëgg yàlla kenn du ne équipe bi baaxul am na ay joueurs yu baax yoo xam ni club yi nekk yëpp dañuy jouer partant dañuy dem partant kon war nañ mën a am coupe la moo ñu mën a waxañ coupe. attaque bi a yor na attaque bu baax euh, gaa moom moom am na lu ko lu ko manqué comme Ismaïla Sarr bu manqué si biir équipe bi dina feeñ loolu sax mais gëm naa ne ñu fa des aussi mun nañ def dara mën nañ def résultat. léeg bon seen taxawaay dañuy gën a yokk taxawaay bi gën a def jom parce que 11-11, la ay gor la waaw dem outil eh, boo demee uti dem a waa teggi sa loxo ki ki la a bëgg mo koy jël dañ def fulla ak fayda rek ay ay góor lañu fo gor la dal mëna def énergie il faut qu'il y ait hein, dans cette tanière il faut que mu am un engouement comme les années précédentes ça veut dire comme 2002 il faut que gars yi kaf il faut que gars yi fo il faut que gars yi hein football loolu la quoi mais waaw jour quoi jour dans son dans son ensemble il faut que mu am benn engouement xam nga foore kafre fecc way pour équipe bi mën am dara xam nga mais football bu fekkente ne dañu dem nga xam dafa nekk benn genre prison ce ne plus ça quoi. équipe bi daal man dama gëm ne ñun ñëpp nañ leen jàpp ñun ñëpp Sénégal yëpp na ci jàpp ne nekk ci ginnaaw entraîneur bu ñu jàppee ci équipe bi gëm naa ne lépp dinañ ko am incha allah suñu équipe nationale moom bu ñu nekkee Sénégal uni danañ am lu ne gëm parce que. équipe am nañ équipe équipe bu taxaw exemple soutien la laaj muy ñu jàppale leen surtout journaliste yi tout le monde ñu jàpp ci ginnaaw nekk soutien gëm naa ne bu ñu defee noonu dina sotti incha allah. national moom dañ koy ñaanal rek mu gañe coupe bi incha allah ñaan rek la am waaye ñu ngi seen ginnaaw tout le temps rek ñu ngi seen ginnaaw di leen ñaanal ñu indi coupe Sénégal.